léegi ñooy fii nga xam mooy Feeling Dakar wax li nga xam ne ma fi jot xew si deux yi nii waaye dañ fi toog ki nga xam mooy DJ Malick dañ koy bàyyi rek comme que moom fekkee ne affaire fekkee ne mbir yi tam tamit dëkk si koñ bi dañ koy bàyyi mu expliqué affaire bi na la demee DJ Malick gannaaw bu ñu nuyoo di la ziar. waaw maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax euh, li am kër je peux pas dire kër parce que day nekk tooñ mais li am ci cité Air Afrique BCEAO 1 BCEAO 2 Air Sénégal c'est extrêmement grave. te autorités yi ñu ngi seetaan li jëm ci préfecture jëm ci mairie jëm ci euh, gendarmerie sax parfois bu ñu ñëwee dem ñoom ñu ñëw def ronde une fois deux fois après du leen gisaat euh, bépp autorité boo xam yaa ngi ci dëkk bi alerté ñu non seulement ci réseaux sociaux yi bind nañu def nañ pétition def nañ lu ne mais nag ils sont en train de laisser des jeunes euh, des des des honnêtes citoyens à la merci des bandits fii ñu toog nii barki démb. cambriolé nañ ko deux fois ci benn guddi cest sàcc bi dafa ñëw gis télé am complice suuf jël télé bi langal ko kooku téye ñu gis sàcc yi yooxu ñu daw jéggi pont bi dans la même nuit <laughs> sàcc yi ñëwaat parce que télé bi nee nañ il faut ñu jël ko comprendre nga deux jours après mooy tey nit duggaat fi ñi nga xam ne ñooy suñu doom yi suñu jigéen yi ñuy liggéey ci kër yi ak xale yi bu ñu leen yónnee boutique ñii di toog fii buntu kër Wally Seck ñooy jël xaalisu ñooñu wala seen téléphone nangu ko par force booy tëdd ci koñ bi booy tëdd nelaw fa nga leen di bàyyi ñu toog boo yeewoo taal sa oto di liggéey fa nga leen di fekk bàyyi leen fa boo wàccee foofu nga leen di fekkaat ñu toog ba ba ngay tëddaat foofu nga leen di bàyyi donc ils sont là h bépp nit bu nekk ci kër ki dëkk yow dong ki dëkkul yow dong lépp la ñu xam ils sont au courant tout parce que fii la ñu nekk duñ fi nangoo jóg. léegi nag ñun ndegam alerté nañu wax nañoo ak autorités yi defuñu parce que ndegam réew mi moom pour nga am euh, ay nit yu toog fii gérer la police wala gendarmerie wala leneen il faut nga nekk doomu diw wala il faut nga am loxo bu guddu ndegam looloo fi am ñun on va prendre nos responsabilités on va déjà euh, prendre la méthode de d'engager des agents de sécurité tas leen ci koñ bi pour que ñii bañ fi toog ñu veiller aussi à notre sécurité bu fekkee def nañ ko booy yi nangu ñu dem. ñun hmm. les habitants de cette cité on va prendre nos responsabilités luñ ci am ñu jël parce que trop c'est trop. dama force wéewu ba ñu ne gannaaw ba fi Wally Seck euh, dëkkee ba léegi affaire bi dafa na a garaaw ndax booy fii nañuy toog sonal laaj ñu ne ñoom ñooy ànd ak Wally ñoom ñu wala ñoom ñooy liggéey ak Wally léegi loolu ngay tontu si loolu. bon je dirais effectivement euh, man fii maa ngi fi dëkk euh, suñ kër mi ngi fi nekk depuis 1990 donc musuñu am problème yi. mais bi Wally Seck ñëwee ci la affaire yi commencé xumba cest à parfois mu génn jël benn somme distribuer jox leen wala mu rey nag ci buntu kër gi séddale gars yi tam xarit bon xëy na mi ngi koy def ci voilà dama bëgg def lu baax dama bëgg def action sociale mais nag loolu muy def moo dem ba topp ko sonal ko sonal habitants yépp donc peut-être moom mi sax tey buy génn laajal habitants yi ñaari oto parfois mu génn bii jaar ni bii jaar ni dissuader gars yi duñu xam fan la nekk. wala parfois mu génne benn mu jaar benn yoon ñëpp topp ko ci bi daw romb ñu nii suñu bunt kër di daw topp waal nan waali waali waali topp ko mais on va être en paix moom nu mu nekkee ci kaw nekk ci jàmm ñun aussi on va être en paix xëy na c'est un homme social on va pas on va pas le nier def lu baax moo ko taxoon a jóg mais nag avec la façon de le faire pas dans une cité parce que fii c'est une cité cité euh, bërëb la boo xam da ngay dem liggéey wàcc ñëw noppalu point loolooy cité. mais nag cité du nekk ñun ñuy dëkk bi si koñ bi sax duñ fi nekk teg suñu banc teg ci mbedd bi di di di waxtaan ci mbedd bi duñ ko def donc pourquoi accepter que les gens viennent d'ailleurs ñëw di ko def loolu nag lañ ne c'est fini on mais une fin à tout ça. gis nañ ñi nga xam ne mooy fii ñu nekk muy Feeling Dakar ñu te ñaari personne def leen menace de mort ku si mel ni Bijou ak ku si mel ni yow lan ngay tontu si menace de mort yooyu li nga xam ne moom la booy def moom la Samba yi def. Ah, comme menace de mort la. Euh, man maa ngi bokk ci ay euh, ay collectif yu am doole ci réew mi euh, loo xam ne ñoo xam ne bu ñu waxee autorité dina si jot dinañ wax dinañ wax te dinañ ko yëg ñun aussi on prendra no mesures on prendra no responsabilités parce que menaces si man dama ko dégg du lu ñu ma nettalee dama taxaw dégg ko nit ki woo nit ne ko diw wax li muy wax ñun aussi on va prendre nos responsabilités parce que tamit duñ toog ba suñuy kër ñu ñuy rey déedéet man boo boobu naree fekk sama kër nar ma rey je te mets une balle dans la tête waaw après lu ci am ma jël. est que jamono ji euh, wóor na ñu ngay ngeen di dox léegi jamono ji mooy si bi est que wóorati na. pour les hommes bon y a parce que ñun moom euh, on sait bien nous défendre euh, mais pour jigéen ñi moom laa doon wax sànq jigéen ñi xale yu ndaw yi souvent da leen di yónni boutique ñu nangu seen téléphone nangu seen xaalis ak yeneen ak yeneen ak yeneen balaa nag autorité bi di ñëw. di ko jël au sérieux mu am viole wala mort d'homme yàlla bu ñu ci àgg nag mais il faut qu'ils prennent leur responsabilité xam ni que ils son là pour chaque Sénégalais nekk ñu fi pour makisal Sall nekk ñu pour Sonko nekk ñu fi pour keneen ak keneen ils sont là pour chaque Sénégalais te ñaq Sénégalais yi ñuy fay di dindi impôt di leen fay moom moo leen di fay ah, ka jiite gendarmerie ka jiite police ak ñëpp ci bokk yam Antoine Diome ak ñëpp ci bokk yam suñu xaalis lañ leen di fay ils sont dans l'obligation d'être service. xam loolu laa am lu ma ci wax. tey jii ñu ñëw tuuti rek li nga xam est-ce que lii xew si koñ bi ki nga xam ne mooy Wally Seck yëg na ko ndax dégg naa tamit si wéy bay ne booy ak ki nga xam ne mooy doomu Wally Seck ñooy ñooy fubal si koñ bi ba tey suba sax moo si mujj. bon loolu wu ma ko donc lu ma fekkeewul moom moo ma ci seede euh, dégg naa rek ñu koy wax mais fekkee wu ma ko euh, mais bu fekkee loolu lu am la euh, Wally warul nangu loolu bu fekkee yëg na ko warul nangu loolu parce que ñun bu ñuy ne dañuy xeex benn affaire. moom moo ñu ci war jàppale surtout que li yëpp ci moom ci base bi ci moom la donc su fekkee ni moom il est courant de saa wax dëgg yàlla il ne devrait pas laisser ce genre de choses euh, di am ci koñ bi. te yan euh, appel ngay lancé li nga xam ne mooy autorités yi nga xam ne mooy nekk si gouvernement bi wala ñi nga xam ne moo nekk si koñ bi en tant que yow mi dëkk si koñ bi. autorité ci gouvernement bi laay wax parce que balaa koñ ñoom am na ñu leen tënk quoi nañ am jom nañ am jom xam ni Sénégal ñoom ay esclaves sénégalais lañ. ba ci suñu président ñoo koy fay donc il est notre esclave ñun lay liggéeyal Guy Marius wax na ko wàccee boppam ne man seen jànk la yéen a may fay ba ci ministre bi Antoine Diome euh, général Moussa ñoom ñëpp ñun la ñuy liggéeyal donc il doivent être à notre service bu ñëwee di am lu ñu jooy ci ñoom du dëgg du yoon ñiy dóor plainte defaat plainte di xaar semaine pour ñu régler ko au nom ko quoi ñu qu'ils se mettent au travail pas ñu ne Sonko day dem wuy rek ak Adji Sarr war na jàkkaarloo ñu teg ay chars de combat un partout du ñu sonal chars de combat la moo tax ñun problème bi ñu jooy depuis des années la moo tax du fi benn teg ko la moo tax waa waa Tëngéej bu ñu jooy insécurité feneen ñu leen ko indil leen benn ñeneen ak ñeneen teg benn teg benn teg benn buntu kër Macky Sall du am na ñu fa tege ils sont là-bas ils passent la nuit loolu. loolu rek laa am lu may wax. ma ñëw tuuti rek li nga xam ne moo xew démb Mbour ak li nga xam ne moo xew fii nga xam ne mooy Ndakaaru est-ce que wóorati na ñun ñun ñi nga xam ñooy ay sénégalais lañ est que wóorati nañ léegi ñuy ñuy dox. dinañ dox moom dinañ dox ah mais li mooy sama sama réponse précédente rek mooy ñëwaat ci bii euh, dañuy gis ni tey premier euh, ministre de l'intérieur buy xëy am na benn motard am na otoom ak beneen auto sécurité buy tëj jiital ko du sax taxaw ci embouteillage yeneen ministres yi même chose am na yenn kilifa yoo xam même chose te pourtant ñun la ñuy liggéeyal ñun ñoo waroon am loolu. ñoom ñoo waroon toog ci